waxtaane Cheikh Ibra Fall sama borom dogal nag daanaka fii démb xaw naa fee fanaan ndax yaakaar naa ne trois heures du matin laa fi jógee waxtaane Cheikh Ibra donte ne sax nag lu ëpp ci mbooloo mi nekkuñu fi woon xëy nag coono yi ak liggéey bi leen tënkoon waaye comme xarale yi ñoom Modou Faye ak jëwriñ yi yor buñ noppee danañ ko mën a toppaat ca loola waaye tey nag ñu amoon yéene rek ci kàddu ndax murit bi bi muy wax léegi ci daf na ma Nasonya soññe as ci pas pass te pas pass moy liñu fi dajalé no ngi sant nak bu baax ndax li ngeen nek moy liggéey Serigne Touba man nak damay dogal ngant ci netali lo xamné ne mouride non lañ koy bëggee da fay bok ci waxtani biir nek te fi am penc la muy lenn ci diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak xasida yi ndax looy gàtt gàtt xam-xam xam ne magi Cheikh Ibrahima yi fi mujj te Cheikh yaral leen boppam xasida yi léggéey nañ ci liggéey bu rëy moo tax waxtaan bu ma ci tuddee ñetti mag rek day doy sëkk su ko defee waa kuréel gi nag mën a tàmbali njàng ma ndax fekkoon naa ñu toog ba nopp maa ngi koy tuub nag muy ku ñuy wax Baye Thierno Sall moom gébb ak ku ñuy wax Baye njaay Ndiaye tombu deel moom it daaree gébb la yaroo ca Cheikh Ibra ak ku ñuy wax Baye Modou Wade jës daaree yi ngeen la nekkoon lu ma leen nettali fii nag ci Cheikh Ibra ku Cheikh Ibra yaram moo ko wax mbaa ku Cheikh Ibra bàyyi ndax àdduna bépp ngi jàkkaarloo ak moom te kilifaa ngi toog te it ñimewuma Seex Ibra ñime gu toll ne toog fi naan foog naa ak yaakaar naa déedéet diw nee na ma Seex Ibra nee na ko laa lay wax diw nee na ma baayam nee na Seex Ibra nee na waaye ñii mën a tuddal nag bari nañ ndax damay ber moom bàyyi Seex Ndaw ndax daf maa jege du ko tudd bu ma neexee waaye daa ngeen dégg ku ñu wax bàyyi Aliou Ndiaye maam Jaara waaw maa ko xamoon bu baax ndax moo ma yar amutoon kër sama kër maam Cheikh Ndaw la dëkkoon ndax moo ko defu murid mu nekk ak moom benn doom la fi bàyyi bàyyi Cheikh la yaakaar moom lañ ko tudde maa ngi moom a dëkk Baye Aliou Ndiaye bàyyi Cheikh daa bëggoon jës bu nag lool waaw boo gisee bàyyi añ ñi ko xam jërëjëf ñi ko xam xam nañ ne sañ-sañ bi mu yoroon bokk na ci lim dencoon ciy soxna ci biir këram moom bay Aliou Ndiaye maam Jaara lim bu nu toll kenn mësu koo dégg ci li ko may nag laa leen di wax tey nii nga def lana der ci kanamu Cheikh Baye Cheikh gis ko waaye Baye Aliou nag tegu ko ci basan da ko doon xaaju Baye Cheikh na bërit jug na ko xaaju koo xaaju ba téere bi jeex fasal na la ko muy soxna waaw xaaju koo xaaju rek fasal na la ko muy soxna bàyyi seex di xaaju ba téere bi jeex lu toll na lam xaaju lépp bàyyi si bàyyi maam Aliou Ndiaye denc na ko ci soxna bàyyi seex a ko ko wax mag ñooñu nag xaside yi ci lañ doon dox gis nga bàyyi Mor Ndiaye tomb de xasida ak jàllibatu maraaxib moo doonoon buntam ci la daa dox bàyyi seex boo ubbee wakkaana xan bii dem ci maha yi wa maha amra di jooju man moo jur sama bay am naa lu ma wóor ci ne xam naa bu wér ci lii may wax Cheikh Ibra nee na ko tegal sa baaraam ci bayit woowu mu teg ca mu ne ko su nit ñi xamoon li ne ci bayit bi wopp dootu am tu soxla yëpp dana faju waaye lii lépp ma leen di nettali nag la ca la ma ca mën a woddu te wax ko laa leen di wax waaye la ca des mënut a génn ndax waxtaan yi biir néeg la waaye bàyyi Mor Njaay toog del daana toog ci benn jataay jàng junniy jaali ba tumaraa loolu ban xalwatu la ko daa duggee waaye bokkut ak fanweer ñeent fukk ak yi daan xëy di dékkee comme ni kafe Tuubaa ci ta te bàyyi Mor Cheikh Rafa ya su masaana xëy ñi juróom-ñaar juróom-ñaar téeméeri juróom-ñaari juróom-ñaar fukki junni basmala ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar lay ci kurusam su nappee teg ci ñeen fukki sorti yaasin ak benn su nappee teg ci ñeen fukki maraax ak benn wéyal fanweer tey si rek ñett loolu comme café Touba ci moom bàyyi moor du xëy mukk te defu su nappee jël kurusam gii moom ñaari tur yi la amoon ñun daa wér ku dajut daam dajoo ku dajut daam dajoo ku dajut daam dajoo mbaa mu naan xoola barkeb kookee barkeb kookee barkeb kookee lii mooy tur yi Baye Mor Ndiaye tomb de daa wér daa wér ci kurusam te Baye Malick Ndiaye ngi dund waaw Baye tomb waaw te nee na soo masaan di jàngi xasida ak jaali ba àgg ci salli wa salliman na yaa fataahu ala lahi doxul miftaahu Baye Mor nee lu ma laaj sa borom def saa si jox naa leen ko àddiyee Cheikh Ibrahima yi di woo àddiyee kooku waaw <laughs> cay kooke waaw mbokk yi jëwri nee na ñu ñëw teral sëriñ Mamour Ndaw mii ngir jëmbe Seere Faal ñëw leen jox ko addiyee Seere Faal ma seetaan nag ma ñeetaan rek ay ca mu gaaw moo tax xasida yëpp xasida yi Cheikh Ibra Fall xasida yëpp xasida yëpp xasida yi Cheikh Ibra yëpp dadaa durus waaw danaa ci dégg dadaa durus Cheikh Ibra dadaa durus man teg naa sama bët ci ay xasida yum daa durus ca njëriñ maa nga ca gaal ya ñu denc dadaa durus xamam Cheikh waaw moo ci mënoon ñëpp mag ñii tam xanaa xamoo leen ne mag ñooñu sax comme ku mel ne bàyyi bàyyi dan defe naa bàyyi bàyyi nis bàyyi ngi fi toog xam na li may wax bay Mahamadan Touré mom wacc na waaye bay Cheikh Sylla ak ñoom ñanga ci ki kii ba Baye Ndiassé ñoom xam li may wax magi durus kat yoyu fi dess jeexitali ñoom bay Mor Diagne Tomb del lañ ñoo ñoo leen toqi waw mag ñoo leen toqi motax bo xolé sax bisu bay Mor yek bay Thierno Sall yep ñoom ñoko séré seere ko def bay dana da def bisu bay Thierno bay bay malik Diagne def bisu Serigne Mor Diagne Tomb del mag ñooñu ñee leen toqi ci xasida yi magi Cheikh Rafal yi bay Baye Modou Wade jësu nga xam Cheikh Rafal mas nako nak kangum arqu an dem sawara mu nako waw mu nako waye kangum kàngum dem sawara Cheikh xasida yi nag ndax mag ñi dañ daan Cheikh Ibra dañ daa romb ñu ko daa cokkaas gis nga ki daan wax Baye Malick Ndiaye da sëñ bi sëñ bi mas na ko Cheikh mas na ma fii xaalal na bi Ousmane ya saxoon Cheikh Rafal na hé bokkuma ak Ousmane de <laughs> jërëjëf Cheikh Rafal na gees na ko hé bokkuma ak Ousmane de <laughs> déedéet bokkuma am na bis da koo romb naan siddu hom mu kabur de waaw Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jëf Mbacke jëf Mbacke sëñ Abdou Lakaram moom Cheikh Abdou Lahad jërëjëf Mbacke ci jërëjëf Mbacke xam nga ne lii day sëñ bi kéeman la démb rek la ma gis Cheikh kon lii dal nam xel lii ñu gënal ngay dem ca waxoo sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal dong la ñuy wër waruñu leen moo tax Cheikh Ibra nag khasida yep ay khasidam lañ waaye tuxfatu nak moy Cheikh ibrahim wa moy Cheikh ibrahim nak ah waaw moy Cheikh Ibra nag moom tuxfatu mom moy Cheikh ibrahim ndax mam Cheikh dana tiim ku koy jàng mag moo ma ko nettali Cheikh rafal dana daana tiim ku koy jàng mu ne hee tey Bamba day fekk gor mu teud mu tang ci dënnam di jox gor ñi moy nan mais neena na sama dënn bi la bu seigne Bamba tank xasida gi waaw doxatu moy cheikh bi waaw saam cheikh nee na bu ko mokru ak góor gu xaramu tayam waaw legi nak kon jëm ji tok di doomi cheikh abdullah lahad si abdullah karam dafa am lu may nettali ci pass pass ndax cheikh ibrahim fall dimbali ñep ngay gi bàyyi Seex Njaay daa bàyyi fii la ko Seex Rafaal joxoon ndigal mu dëkk fii waaye li taxoon mu dëkk fii mbir la loolu la leen di nettali daana wax ne kuy dund ci nekk te ne ci kaw suuf danga ma umpale man waaye ku faatu ba am ñetti fan ci bàmmeel di nga xam ne taxoon Seex Ibra ma Njaay waa Seex Njaay daa waaw moo tax Ngaay dëkk bu am wàccuwaay ak maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ba seigne Moussa Ka leram leeram gi sar ba ak ci ties ku ñew mu la ba nga fess di nit ku ñul ak nit ku weex ñëpp nga boo fa kay mexe ne ne seigne Cheikh Anta Mbacke khalifa daru salam ñi ngi ci yoon bi di ñew and ak yi dëkk bi kon xiste bi may nettali ta delloo kaddu bi ma ngi koy wax ci seigne Abdou Lahat lum nettali ci mam Cheikh Ibrahima Fall bi Mouride sëñ Cheikh mbay yaaram moo ma ne waxoon naa ko fii démb démb ci guddi bi sëriñ Saliou bi sëñ Modou Aminta di liggéey ke sëñ Saliou gii nga ke sëñ Saliou gii sëñ Modou Aminta ko doon liggéey bëri na sax nag ci kër sëti sëñ Touba yoo xam Baye Fall yi ko liggéey waaye ke sëñ Saliou gii ko sant sëñ Modou Aminta ngir mu liggéey ba mu koy liggéey sëñ Abdou laat daa bàyyi bu gudd jot mu dem di xool liggéey di ca yéemu nag lool sëñ Cheikh Mbaye yaaram nee na sëñ Abdou Lahad moo ma woolu ma ma ñëw mu ne ma seex bi damaa demoon xooli woon liggéey bi sëñ Modou Binta di def ci sëñ Saliou waaye seex liggéey ba kéemaan na lool sëñ Modou Binta da jàmbaar la waaye dama laa bëgg a nettali lool njaareem la xewoon fi Seex Ibra Faal sëñ Abdu Lahat tey nettali de daal di wax sëñ Seex ba yaar na ko dafa am kilifa tukkulóor bu mas a ñëw njaareem seet si Seex Ibra Faal ànd ak dongaam ab dongaam la àndal bi mu dikkee Seex Ibra Faal woolu sëñ yaaram bay na ko dama dalal kilifa gi dama dalal ku te ñëw sëñ yaaram dalal ko ab diir sëñ yaaram del siwaat ci Cheikh Ibra Fall mu ne ko yaaram a kilifa ga mu ne ko dalal naa ko mu a ko ah dënn baa nga fees telekki araf moom moomee waaye ndongaam loolu ci gannaaw mu àndal de ko gën waaw na ko ndax ndongali mas naa gis sëñ Bamba te moom su koo gis sëñ Abdou Lahat ay nettali nee na nes tuuti sëñ yaaram bàyyi ba ci kanam mu dellu ci kilifa ga nee maa ngi waxtaan ak moom ba ne ko waaw ndax bi sëñ Tuubaa yi ci kaw suuf mas ngeen a gisee nee na kilifa gi damaa man nag jotuma koo na ndongalaa nga suulu ci gannaaw man de am naa taw fexe bi seen ci jorom waru fasal nee séef laat na ma gees na ma waaw seex koo xam ne gis ko képp dana tax a gëm sa morom kooku saa boo ko dee xëyal xanaa sam xel war naa dal ma ne ko waaw mënu mën na seen xel dal bu baax a baax a baax a baax loolu sa bàyyi ko nett di de suñu seex mbay yaaram bu ko wax bi ci des mooy nu xam ne kon sëriñ bi lu mu bëgg ci nun rek am na waaye nag ku def bëggu sëñ bi sëñ bi def sa bëgg te yéen a ngi def bëggu sëñ te it nag sëñ Touba ceddo yi masaan di jébbalu ci moom ñëpp ku ko mas a jox sa bopp mboole la Cheikh Ibra moo tax démb ci guddi bi ngeen ubbee bis bi Cheikh Ibra Fall ci ngont bi xëy xaside yi ma wax ne yéen boole ngeen ñu bokk borom ndax Cheikh xaside yi bokk borom Cheikh xaside yi ñoo bokk borom bi seede yàlla te lu mas ñëw ci sëñ Touba mu yabal Cheikh Ibra Fall xoolal mbaaxaan mi ngeen di dégg Cheikh Ibra ko def murit Ablaye Xaar mi ngeen Cheikh Ibrahima def ñu ñoxo mboore mangara ma ngeen da dégg tuub na ci njéerim seigne touba tuddu ko muuru mangara muy tarbiya di rot ndaaya mbar jur siga ci njukki Cheikh ibrahim Fall ko def mourid tuddu ko ibrahim Fall mbar jabot ga nga ca kon tay te boo fàttali ko histoire da nga xam ne kon te Cheikh ibrahim kum dimbali nga am dimbal ñom ñep Cheikh ibrahim Fall leen dimbali la kenn ko ne bi ngay ñew ci seigne touba yatu nguur nga yoron tay waye dang ko sanni ngir yatu ngëm di seigne touba Cheikh ibrahim keroog bi mbaaxaan di ñëw di jox boppam foofu lay tëj sama kàddu mag ñi dañ doon fàttali ku la woon déw mooy yaa ngi maa ngi yàllaa ngi yonent bi baa ngi seede yaa waaye li lay xamal ne seex bi kenn xamul lu doon mbaaxaan taxaw di jox kër bi sëñ boobu amagul fanweeri at ñëpp na alku na mu mujj doon seexu Baay Faal ma ngoog sëñ bi dafa bëgg a ñaanal mbooloo te dem ma ne keroog bi mbaaxaan di ñëw di jox bopam serigne bi magni ñi fàq na dugg bu ci kër gi am ku ko déy ne ko demal ci Cheikh ibrahim Fall bo jaare ci mom ñew li nga bëgg dang ko am mu dem jaare ci mam Cheikh ibrahim Fall ñaari kaddu yi serigne Touba yi Cheikh ibrahim Fall wax serigne Touba rek la leen bëgg leral ngeen dig bimu jappé ci loxom mbaaxaan bu ñew ba ci ku tedd gi daf ko ne mbàkki dimbalil mbaaxaan dimbali ko ndax firaw naag borom ga mbaaxaan mi yëgutu te yaa gën Moussa wasalaamaaleykum wa rahmatulah